cëy boo bëggee xaalis bëgg xalal bëgg wërsëg bëgg wilaaya bëgg xam-xam bëgg daraja bëgg xam teraanga ju wér joo xam ne nit ñi dañ xam ne yow mii nëtax nga ci teraanga xam nga baatu nëtëx nëtax mooy xam nga nëtax déedéet nëtax kay maa ngi allahu akbar yow waaye yow dégg nga olof ah nëtax mu mànk doo dégg ne olof de nëtax nëtax nëtax ci teraanga mooy eh? koo xam ne xam na ay milliards waaw xam na ay oto xam na ay kër dundam day lekk këram dañuy xañ di reer di ndékki te dañuy misi dañuy teralaate dañuy maye ay lekk dañuy joxe ay dund dañuy maye xaalis dañuy faj soxla dañuy dindi ay njàqare loolu mooy nëtëx maanaam boo xamee ba ñëpp xam ne xam nga te ñëpp di xamee ci sa xam waaw loolu mooy nëtëx maanaa ku ko bëgg waaw saxal ci lii indi na siraatal mustaqima jëf sëriñ bi cay koomal xaddina daal fi ñu doon ne ak àllaaxira nga mooy ihdina siraatal mustaqima six mille la wax six mille six mille cent vingt fois. waaw yow essayer essayel rek nga jël six mille cent vingt fois nga sikar ko ihdina siraatal mustaqima nga sikar ko rek juróom-ñaari fan. Mhm. nga téye ko balaay at nga xool. incha allah incha allah rabbi. Ah, fatiha ñetti salaatu fatiha. waaw moom nga koy tëjee fatiha ñetti salaatu fatiha moom nga koy tëjee. Euh. julli ci yonent bi nga koy tëjee julli ci yonent nga koy tëjee. Uh-huh. numéro hmm? téléphone Serigne. 78 162 64 64. 64 64 téléphone sax gaa yoo xamaguñ xamaguñ secret la. numéro téléphone. numéro téléphone. waaw kenn mënu ko am ci hasard. mukk waaw maa ngi la koy bindal nii ci kii bi numéro téléphone bi 78 162 64 64. ah. numéro dafa garaaw numéro téléphone. xanaa xamoon ne ña xam baatin dëgg. waaw soo leen joxe si numéro téléphone doy na soxla sa tur yaay soxla sa tur baay soxla wu sax xam noo tudd. sa tur numéro téléphone numéro téléphone code xamee te ñu xam ne yaa ko moom. waaw identification bi yaa ci ne. Eh, lu luñ bëgg a def mën nekk ko def numéro téléphone laa ilaha illallah muhammad gisoo Sonatel bi nga xam ne moom moo moom numéro yi waaw mu ngi ko def en deux trois quatre cinq six sept un deux trois quatre cinq six sept moom mooy moom mooy numéro yi léegi 77 waaw ñaata la 7 la 7 ak 7 mu nekk ci 14. 14 1 ak lan la. 5 1 euh, xaw ma 1. 14 1 ak lan la 4 ak 4. muy lan muy 5 ak 4 muy 5 waaw. loolu mooy numéro numéro 5 mooy 70 5 la maanaam seen code ba 5 la ni mooy numéro 5 ca code ba. <laughs> ah waaw 70. Mhm. ñaata la. 7 mu ngi noonu seen numéro ca ca ca code ba 7 la 76. laa la set ak lan la. set la ak 6. boo ko boolee lu mu lay jox. Euh, mu nekk 14. 14 ña léegi 14 euh, ñaata la. 14 kii la déedéet. 7 ak 6 ñaata la lay jox. 7 ak 6 waaw 14 la. déedéet. ah 7 ak 6 13 la 13. 13 lan la. 13 1 ak 3 mu ñaata. muy 4 amoo woon ña am la ñu ko am. 5. am ak lan. ak 7. Euh, ak lan. ak. Euh, léegi am nga 4. 4 waaw. waaw léegi lu am na numéro 75. 75 waaw 7 ak ñaata la. 7 la. ak muy 3. am nga 4 2 3. waaw ak sa am nga 2. am nga 3. 4 5. yaa ngi dégg ak 7. waaw beneen ba beneen bi ban la. 78 78 waaw. Euh, ak 7 ak lan la. waaw. ak huit. ak huit. ñaat la lay jox. trois sept huit trois huit deux. boo bëggee xam calcul mental mu gaaw boo bëggee xam calcul mental mu gaaw booba waaye boo seet ak huit dangay dindi bien benn bi mu nekk seet ak sept mu doon quatorze ci benn mu nekk ñaata mu nekk seize mu nekk quinze quinze quinze un ak lan la ak cinq mu ñaata six ah loo am 6 yaa ngi amaat 6 encore. amoo 2 3 4 5. 6 ak 7. ak 7 numéro yi jeexuñ. tàkk nga lii jeex na léegi nag mu des naata chiffres yi nga xam ne ñoo ko moom. waaw waa Sénégal ñoo ko moom seen mooy 0 ak ak ak kii doo gis ñu ne bind 0 0. 233 33. waaw 33 waaw 33 ñëw na. yaa ngi dégg. ay code la. expression mooy. expression mooy soixante dix eh, <laughs> yaa ngi dégg. Hmm, loolu ci domaine chiffre la ak mat domaine mathématique. loolu laa lay wan ne lépp ay maanaam numéro téléphone ay code la. dëgg la. <laughs> moo tax kay seen numéro téléphone yi day jékki-jékki rek indi ay 77. indi ay léegi Sénégal ci boppam dafa am code boppam. ci code yi. waaw code bu mag bi. waaw Sénégal 221 la moom. 221 mooy lan. 221 2 la ak 2 ak 1. waaw 2 2 1 ñaata la 5 la 5 la. léegi téléphone bi gën a ëpp doole ci téléphone Sénégal ban la. bi ëpp doole ci téléphone Sénégal. waaw ah. 77 la de. 77 lan la. 77 5 inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi de <laughs> <laughs> numéro téléphone am nag. loolu mi ah, waxuma ci numéro téléphone de. ah li nga xam ne def na fang laay waxtaanee li nga def fang nga xam ne boo demee calcul gis ko laay waxtaanee de. loolu mooy code bi naa. salaire lépp zéro ak un. non zéro un waxu ko ma ci code binaire. waxu ci zéro un waxu xanaa xamoo ne un du chiffre un daya la. vrai vrai vrai chiffre mooy zéro. wax naa ko fi gars yi waxtu leen ko danaa la chiffre réel mooy zéro moo tax moo mën def pouvoir su su ñuy tàmbali. waaw njëkk bu ñu bëggee doole muy mujj bu ñuy tàmbali dañu naan zéro un. bu ñu demee ba dix li ñuy wax. dix déedéet da ngay zéro ak un nga teg ba mu am ñaata am dix boo amaatee zéro looy teg cent boo amaatee gis nga pouvoir yi ni muy gaawee léegi alal na yaa naka la mën a yokkee pouvoir loolu téygut boo demee ci logique dañuy bañ loolu dëgg loo xam ne amut nu mën a mayee doole doole kay ku am doole moo koy maye léegi yow nga jógee un rek teg zéro rek am dix tegaat zéro au lieu nga am onze nga am cent nga tegaat zéro am mille nga tegaat zéro am cent mille tegaat zéro am un million ay ah, sëñ bi. romb li li nga ro li li romb. te yow li yaa ngi koy gis ak bët mu nekk dëgg. léegi ñu bëgg la ko wax mu nekk ay théorie nga bëgg a gëm théorie bàyyi dëgg ji nga ñanoo maanaam boo tegee zéro am dix soo tegee dix soo tegee zéro am cent loolu loo gis la ak bët. waaw naka nga ko mën a sànne di di dellu ci loo xam ne yaa yaa koy nangu ci xol. mais xam naa yaa <laughs> moo lay xamal ne yaa quelque chose d'état. dégg nga ne kii nee na Jérôme mooy joxe mooy joxe courant. Zora Zora Zora mooy affaire bi Fala yëf yi mooy mooy mooy mbóot ma. Ah. <laughs> mais yaa ngi ci soixante-dix ak kii di nga fi dolli fi nga toll ni affaire bi. garaaw na de ma la numéro téléphone yi moo tax nga gis gars yi ay nga yaakaar ne dañuy toog rek ba mu neex leen rek ñu jël seen numéro rek sànni la. eh waay ndaw nga yaakaar àddina bii dafa am hasard si hasard e-, existe y a quelque d'autre koo xam ne du yàlla ku nekk yàlla ci àddina bi mu yàlla li def muy def. mais bu dee yàlla rek bu dee yàlla mooy yàlla. te doo mbir yëpp ci loxoom la ne. waaw hasard mënut a nekk. dëgg la de. <laughs> ni ma téléphone rek dama la koy jox mu leer. 1 de 3 4 5 6 7 la. léegi nag gars yi commencé 3. 3 4 5 6 7. zéro fan mooy cosaanam. Hmm? kii de nee na zéro fan mooy cosaanam. cosaanu zéro. Ah? am na. Euh, yaa ngi dégg. waaw mais loolu ci ci xam-xamu xam-xamu science. waaw àggu science àggul foofu loolu ci wàllu baatin ñoo ko moom ñoo ko am. Euh, avant zéro. science amul euh, mën a découvrir. avant zéro parce que ñoom gëmuñu ne yaa. science gëmul abstrait. bu ñëwee ci abstrait da koy contourner continuer parce que day bañ boole ko avant zéro am na. am na 100 waaw loolu moom mooy avant avant zéro am na. mais avant zéro tey su ma ko doon théorie uh-huh. di ko jàngale uh-huh. waa baatin dañu may wax ne yaa ngi yor mot de dama boobaa du ko jar d'ailleurs li ngay wax nii rek fi ñu toll nii doy nañu pour ñu war a comprendre ne fi ñu toll waaw am na adduna bi ay code la léegi dafa am esprit yoo xam ne ñoom dañoo am capacité uh-huh. ci yeneen autre ci yeneen monde yi am yeneen esprit yoo xam ne seen capacité dafa faible yooyu bu ñu toggee nit ñi di waxtaan ak ñoom nit ñi dañu jàppale nit ñi nit ñi nit ñi comme catégorie comme nit ñi lañu tolloo capacité dëgg la yooyu nag boo defee ay code dañ koy xam ama code lu nëbb la waaw mais ki nga xam ne xam na secret waa mënoo def code ci kanamam mu ne mais ab terrain mooy lu figé wala figé figé rek wala kii mu ne comme comme France 33 mooy indicatif. gis nga numéro bi. gis nga France seen indicatif 0033 la. waaw léegi ñun yóbbu ñu 221. 21 33 ñaata la. 6 33 6 la. gis nga. mu ne te numéro yu bari